man doobuhoo lañu soppam lil xar bi ñeel na xare wal irhaabi aku ragalloo li kaafiri ñeel ab yéefar yux daam boobu def na ko war am def na ko nax bil kizza bi ca fen wa nee na fen wa nga xam ne moom la ñu sopp de mooy yéefar yi buñ bëggee xeexal jullit ñi nga taal leen ñoom yéefar ya wax leen lool lool daal nu jullit ñi amee ngànnaay ak nu ñu baree wax a wax wax daal loo xam ne wóor na ni moom li nga wax amut waaye nag bëgg a tiital yéefar ya xupp leen rek ba ñu nasax daw mbaa buñ dee xeex duñ amul njàmbaar duñ sawar ci xeex ba loolu nga ci jublu fen woowu nee nañu mooy fen wi ñu sopp waajibuhoo aji waram ja moom fen li fakki maalil muslimi ñeel na xob bi alali jullit mooy jëlaat alali jullit wa maali nafsihi ak alali boppam yi xaqiqan ci dëgg-dëgg fi dami ci deret nee na fen yi nga xam ni mu war la mooy sa alali bopp mba alali sa mbokkum jullit bu fekkee mën ngaa wax ba nangoo ko ca boroom doole ja nga xam ne moo ko nangoo ci yéen kon loolee nga fen ba jot ca lu war lay doon rawante na itam bu fekkee ne borom doole ja daa nar a sa deret mbaa mu nar a tuur deret sa mbokkum jullit yooyu yëpp moom bu fekke mën ngaa wax lu amut muy fen waaye bu boobaa da nga mucc sa mbokkum jullit moom mi mucc kon fen woowu lu war lay doon nga xam wax ne lu mu ci mën doon ci ñoom muy sa deret bopp lay nar a tuur mbaa sa bopp lay nar a nangu wala alal yi sa mbokkum jullit lañu nangu da nga mën a fen ba jot ca delloo ko ko mbaa deretam li nar a tuur te nga mën a fen ba des ko tuur yooyu yëpp moom nee na fen wa day war nga def ko doo ko sañ a bañ mu baaxu foo lu ñu daganalam yaa saax yu sama àndaale li yi ñeel na defare ka bay na lu waraa a diggante mbindeef yi maa fii del muy nekk ci moom min junaahin benn bàkkaar fen yi nga xam ne moo dagan nag nga xam ne mën nga koo def te dara la ca topp agul nag ci sopp agul tam ci war waaye dagan na mooy booy defaree diggante ñaar ñoo xam ne seen diggante dafa naqari boo ci waxee lu amul itam ngir defaree diggante ba woowu fen dagan na makruuhu lu ñu sibam nag li saw jot ñel na soxna tatyiban ngir teeyal li nafsiha kanam bakkanam walibnihi ak ñel doomam tahbiban ngir soppaloo wala ngir sopp fen wi nga xam ne moom la ñu sib nag xam ne bañ gaa def moo soo ko moytoo daal am tuyaaba boo songee def ko itam doo am bakaar mooy bëgg sa digganteeg sa soxna neex ba tax nga wax ko lu amut mbaa bëgg sa digganteeg sa doom neex ba tax nga wax ko lu amut xaraamuhu aji araamam huwa moom àllës yi mooy fen wa nga xam ne xad xulli ma xameef na ko li xëyri ma manfaatin ñeel lu dul njariñ charxiyat bi ko jug yoon fen wi araam nag mooy fen woo xam ne daal boo ko dee seet bokkut teg benn ci yënga weesu nga xam ne amul benn njariñ bu yoonu lislaam mën a jàpp ne am na njëriñ bu jar fen ba noppi nag téewu koo fen woo fen moom fen wu araam la waqaala wax ne nag xawmun nit ne kulluhoo léppam xabiixun aji bon la wax moom loolu ak saxiixu mooy aji wér fii mazhabi naa ci sunum ngir mu ne am nañu wax ne fen daal moom jërul teqale naa bee ak bële ak bële yëpp rek benn fen baaxut benn fen baaxut fen yépp aay itam mu ne nag loolu ñun moo wér ci sunu yoon loolu way wa tàmbalee ci li xamsatil aqsaami ba ci manfaatin charahiyatin qad xulima mooy juróom benn bayit yi nga xam ne moom la waajoo ci waxan di ca leeral juróomi xaaj yi nga xam ne moo di xaaji fen way wi ci topp nag tàmbalee waqaala xawmun kulluhu sëñ bee ko wax ndax dañoo wax ne mënees naa gaaral wax loo xam ne ku ko dégg yow jubluwoo ca loola waaye mën naa defar sa mbir mooy li wax naa inna fil maharidi la man duuxatan xanil kazib xeeti gaaral yi mën nga cee jaar am la nga bëgg te doo fen mel ni daañu ko misaale waa ju baax ñu doon xañtu nit ba agsi ci këram ne ko ana diw nee nañu fii la nekk fekk na moom kat kooka moo ko làq foofa la nekk waaye moom ku baax ki mu daal di rëdd aw rëdd teg ca baaraamam ne ko fii day nekku fi nga xam ne foofee mu teg baaraamam mu waaj a nekku fa te xam nga ki muy waxal day jàpp ne rek moom li ko bëgg a wax mooy nekkul fii fi man dangaa dégg ne mi ngi fi waaye nekku fi fekk fa mu teg baaraamam la ko bëgg wax ne ko nekkul fii moo tax na xeeti gaaral yooyu mënees na cee doyloo ba bañ wax lu amut am man namimat ndaal la daa mën nga xam ne baxasa gëstu na fa naqalu ko mooy sa toxal alxadiisa waxtaan wa xam man jëlee ca ka xam ne xaddasa waxtaan na ko bi jihatul ifsaadi ci wàllu yàq rambaaj mooy siiwal loo xam ne siiwal ga day yàq saa yoo toxalee ay wax dem li ko keneen ndax bëgg yàq diggante ba rek loolu mooy ràmbaaj wax ya moom nag aqbahu moo gën a bon min xiibatin ci jëw kama siyooxu ni ki nga xam ne sëriñ sa sarraxoo wéral nañu ko mu ne nag nee nañu ràmbaaj moo gën a bon sax jëw ndax li mën a yàq ak li mën a andi ci noono jëw mën na koo bañ a def ndax jëw mën na am sax kenn jëw du ko dégg moo tax mu naa li kaw nihaa ngir ak nekkam tu sab bi bu di sabab alxadaawata noonoo wal buxda aku mbañeel bay nan naas ci diggante nit ñi wa shaqaawata aku texee di rambaaj moom daa mën a noonale ay nit def leen ñu bañante jox leen dund gu naqari naqari goo xam ne day na waar lool loolu moo tax nag moo gën a bon jëw waxiya moom rambaaj la dal asiyaax yi fa sëriñ sa summun tooke la taqatulu sos dana rey turiyaa quhaa ak moccam maanaam ak lu daal al inraadu mooy dëddu xan xaa walis ko faaqiloo na ngeen xellu rambaaj nag nee na biñ ko misaalee luy màtt te am dangar mel ne jaan xamal kon am nag lugg guñ ko mën a luggee ba du gaañ lugg mooy rek wan gannaaw rambaajkat boobee bañ a faale ay waxam bañ koo diglu bañ koo jàpp loolu daal mooy li mooy li ci rambaaj ga daal di saafarawu du mën a yàq dara dara wal hujbu aaw wal xiibatu ak jëw wal buxdu ak mbañeel alxasaru ak kañaan aydan ba tey wa sumhatul ak ndéggtal naxa tere na xantaa walis yooyu assamadu yàlla ki ñu jublu ci aajo danoon wax ay mbir yoo xam ne ab jullit da ko war a moytu jot na caa wax lu mel ne rëy ak sol ak fen ak rambaaj mu jàll ci yeneen ne li ñuy wax aaw de yi dana ko firi léegi lu bona la lu mata moytu jiw ba tey noonu jekki-jekki bañ kenn te ngir yàlla taxut dana ko wax léegi moom itam ëpp naa def ak kañaan kañaan moom du ko du ko jote ci téere bi waaye mooy ku am xéewal te yéene woo ko ga su fekkee da nga caa boole di wax ci saw làmmiñ ndax la ko añaane mbaa jëf ci say cër moom mu daal di araam lool lool àgg ci lool bu fekkee nag sa xol moom loolu neexul waaye taxul na nga waxee ko mbaa nga jëfee ko loola moo tane waaye nag gënut dañoo bëggoon sa xol set ba nga xamee ne lu waaye am ci xéewal jàmm rek nga yéene ko ko teewul nag bu fekkee loolu nag ci sa xol ci añaane kenn naqari na la boole ja te waxi ko jëfe woo ko suñu borom du la ko jàppee kenn du la ko jàppe incha allah ndéggatal ba tey jotu koo firi ci biir téere bi waaye mooy def lu baax ba noppi wëlbati ko di wanet li ngir adduna kese ni ki bëgg ko ca tagg mbaa bañ ko ca mbaa mbaa bu ko netliwut am ko ŋàññ mbaa bëgg ko naw ak yu demee noonu de bu ko netlee sax ngir bëgg ko ca roy xam ne ngir yàlla rek a tax loola kon baax na mu ñëw kon mu ñëw kon njëkk wax aw xaqiqatul xujj bi dëgg dëgg aw bi dammil xayin ci damm xayin ga wa bi sukkoon jiin ak ci sukkoon jiim ga bu duuna may ni ci dul fen ñena xujj bi ji nga xam ne soo ko di bind da ngay maas xayin gi maas ak lonk maas jiim gi maas ak néeg baa bi nag moom léeg-léeg nekk bi léeg bu nekk ba léeg-léeg nekk bu lool ñuy jàng na wu xam nañ ko dëgg-dëggi aaw may lu may lul moo di jéng ilaa nafsin jëm ci sa bopp maxas ti xonzamin ànd akuk rëyal laxaa ñeel sa bopp aw moom mooy naw sa bopp rek moom aaw moom mooy gis sa bopp naw sa bopp rek saa yoo xam ne daal naw nga sa bopp réyal ko lool mbaa sa xam-xam mbaa sa jëf mbaa say jikko rek loolu mooy aw te loolu nag ëpp naa def lu yàlla bañ a bañ la li koy waral nag mooy li misiyaari ko gis ak fàtte dal anaañ borom bi néef yi li koy waral nag mooy fàtte yàlla ndax xam nga ne la ngay naw ci sa bopp muy xam-xam muy jëf muy leneen soo ko seetloo defoo ko ci yàllaa ko ci def loo xam nag jëfoo ko keneen a ko jëf boo amee xel doo ca naw sa bopp li waral naw sa bopp daal moom mooy fàtte yàlla mi nga xam ne moo la bind def ci yow li mu def ci yow mi ngi mel rek ab gopp buy naw mbayam xam nga ne gopp ba neexut waggi ka ko waggi ka ko moo neex dawaa uwa saafaraam nag moom naw xel mu ko mooy sax xam ne àndal xamale naka jëf ja li maalik li anaame ñeel na aji moom mbindee fi jàll maa ne waxalaate mu kawe liy saafara naw sa bopp nag mooy mu wóor la ne jëf ji moom ca dëgg-dëgg yàllaa ko jëf jaarale ko ci yow rek moom waaye yow xam nga ne jëfoo ko naka moom jëf ja maa silte dañoo saa taq siirin di boromu gàttañ lu fii ca moom walam taji te dikke woo bi kan naqiiri ci lu toll ni naqiir fii jam bi ci wàllu la nga xam ne xale ko war na la min xaqil jalili ci aq aji màgg ja walam taji te dikke woo bi daratin ci lu toll ni aw sangaleñ wala fatil du caagéenu lu toll ni fatil di koy faj daal nee bokk na ci nga xam ne boo seetloo jëf joojee gàttañ lu nga ca mooy am na nu mu gën a baaxe nga xam ko mënan koo def te defoo ko ndax doomi aadama moom daanaka li ñuy wax gàttañ lu mu mucc ci néew na lu muy jëf lu ne ak tàyyeelam ak dem day tax mu xam nu mu gënee ba noppi man ko tey du te du ko defe noona day xam la muy def na mu gënee dana ko mën tam du ko fàtte te lu tax nag mu defee ko noon ndax rek topp ak tàyyeelam ak topp bànneexu ba kanam akum nooflaayam loolu na xam nga ne seen sikki yeesu ko kon jëf joo xam ne gàttandiku ko am na ca rek jërëtu la nawati te it nee na boo seetloo la la war sa diggante ak sa borom loolee nga def ba di ko naw da ca doon dara boo ko tolloo leen moom boo seetoon la la war sa diggante sa borom nga teg ko fee seet li nga def ba di ko naw teg ko fii mu den ak moom li nga def ba di ko naw du doon dara dara dara dara ca loolee nga xam ne moo la war sa diggante sa borom boo ko dee seet da nga xam la nga def tolluwul ne aw sangaleñ tolluwul ne sax karanus kembu ma maanaam wëñ si nekk ci kembu tàndarma la nga def ba di ko naw tolluwul noona ci boo ko tollooleeg la la war sa digganteeg sa borom wa an na man ak naka ka nga xam ne intamada sukkandiku na xalaa si wallaahi ci ludul yàlla taxal laa mu rekkiku xan hu walis ko wa tawaate mu alko yow man naka di ci bisub suñu borom moom boo sukkandikoo sa jëf leen lu bokkut ak moom dalay seetaan yàgg loolee ngay sukkandikoo ba xam nooy def xam nga ne ku yàlla seetaan ak say mbir ak say jëf rek alkande ñëw na wa annahu am naka moom yuum kii dana jàpp ni an laa yokku bala bu dee ko nangu li kasaratil xilali ngir bari ay ràgg maanam ay rëq-rëq ay yàqu-yàqu fii ci jëf ja fàqilan na nga xel no ba tey nee na nga seetlu ne jëf ji ngay naw matagut a naw ndax xamoo ba xam yàlla nangu na koom déet te jëf moom lu mu rëy rëy rëy te yàlla nanguwu ko coono baa fa nekk kon waaye lu luñ cay naw li waral nag xamoo ba xam nangu nañ koom déet mooy doomi aadama ci boppam daa matadi lu muy jëf matadi nga feeñ ca xam ne yàllaay nangu rek ci baaxam ak ngëneelam waaye du matug jëf ja du matug ka ko jëf wa rubbama ibadatin baraana ak jaamu kasiiratin guy aji bari qad afsadat ha yàq na ko lahzatun ak gendiku xaqiiratun guy aji xeebu nee na baraana jaamu yàlla goo xam ne gu rëy lay doon gu bari lay doon waaye ka ko def moo ko gendiku maanaam moo ko xool xool bu tuutee tuuti xoolub nawel rek tax yàlla daaneel jëf ja soxlaatu ko kon baraana jaamu yàlla yu bare bari yoo xam ne naw bu tuute tuuti moo ko yàq laa yem yi du yell il xam di ñeel ab jaam danwa azamati qurabihi woote màgguk ay jaamoom di rabbihi ñeel boroomam ci ni amati kay boroom xéewal ab daal nee na lépp lu def ci digganteem ak boroomam da ko war a xeeb waaye waru koo naw waruta def dara digganteem ak boroomam ba ko naw xaqiqatul xiibati dëgg-dëggi jëw duuna rey biñ ci dul benn sikki sàkka jikru mooy sa tudd xaala shaxsi mbirum jëmm ja baadal xëy bi ci gannaaw fàddu ga aw xaala maa wala mbirum loo xam ne taxal taallaqa ajuna bi ci moom bi maa ci loo xam ne yakrahu dana ko sib law sami axoo doonte déggoon na ko faltaala man na nga xam bokkoon na ci waxoon ne mat naa moytu lool mooy jëw muy xam ne jëw nag jëw moom nee na mooy nit nekku fi nga wax ci moom loo xam ne su ko déggoon du ko neex mën naa aju ci jëmmi boppam mbaa leneen lu aju ci moom rek ni ki ab toolam mbaa otoom mbaa këram mbaa rajoom moom daal jëmmam ji mbaa lu aju ci moom daal loo ci wax rek loo xam ne nekku fi waaye su ko déggoon du ko neex rek loolu jëw la xam ne kon moom mën naa yaatu lool lool te sax balaa nekk jëw fekk li nga wax am boole ci waaw la wax daa am boole ci sax ne bu fekkee ne moom la wax farul am sax moom day weesu jëw mooy amma isa zakartahu ndaal ndéem tudd nga ko bi kullimaa ci lépp loo xam ne lam yekku nekkut xaalahu di mbiram fa buxtaanun kon aw duur la samaawu yëkkatiku na nee na bu fekkee da ngaa wax ci moom loo xam ne sax farul am boole ci su boobaa kon da nga koo duural da nga koo waxal aw fen wu ñaaw a ñaaw xam ne kon moom balaa doon jëw rek la wax sax am bu wér waaw ah, waaye bu fekkee la wax firul am sax moom kon da nga koo dóoral kon daal nit nekku fi ngay wax ci moom dara dara daal dee ko moytu foo toll wa mën a tere nañu daalika loolee ay don ba tey fil xadari ca teew ga li àndaxoo ngir naka moom ak sunu moo gën a bari ay ban ci ayub wa darara ak ci lor tax inna lës yi naka ka nga xam ne sax xaala wax na bi xëy ditaa ci lu dul lii waxi ma juum na wa xarraxoo te war na ko mafhumuhoo la mu dégg wama fahima te déggut sax maanaam bokk na ci li gën a aay sax mooy waa ji teew fi ba noppi jëmm ji teew fi ba ngay wax ci moom ay sikkam xam nga nga xam ay ayib ak sikkam du tax bu teewee rek nga sañ ko ko wax maanaam bu ñu nee jëw moom mooy nekk fi nga wax ci moom loo xam ne su ko déggoon du ko neex taxul nag bu fi nekkee itam nga sañ koo wax dara dara ci ay sikkam mbaa yu noonu ndax leen loolu sax moo gën a aay ngaañ maanaam moo gën a indi ngaañ lu teew fi saasay saasa te xam nga jëw mën naa am kooku bañ koo dégg su boobaa yow mi jëw rek yaay gàddu bàkkaar ba gàddu la cay bon waaye boo ko waxee ci teewaayam nag moom bu dee borom jikko ngeen jàppante te bu ngeen jàppantee rayanteeg lu ne mën na caa juddoo waaw nag ku wax lu bokk tëg rek moom bu fi jëm ji teewee moom mën nga koo wax li nga ko bëgg a wax balaa du balaa aay rek mu bañ fee nekk nga wax ci moom dara mu ne ku yaakaar loolu dafa juum rek na mu déggee duna defe nañ dégg na waaye na mu déggee duna ndax niñ ko waxee teewaay bi sax ngay wax ay sikka moo gën a mën a andi lor fi saasee saasa moo gën mën a yàqu seen diggante fi saasee saasa xas bu ko war na laa doy fiihaa ci moom jëw ne ànd na fil quraan yi naka nekk na ci alquran tashbiihaha ak niróoleem bi maytatul insaani ci néew doomi aadama nee na sax boo gisee ne alquran waxi jëw wala yoxtab baadukum baadan teg ci ayuhibbu ahadukum an yakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuhu nee na alxuraan ba muy wax jëw di ko aay dane bu ñenn ci yéen di jëw seeni moroom ndax kenn ci yéen bëgg na mbokkam faatu dim néew mu tiim ko di ko lekk noonu ma ko nuróoy ni mu ko misaale ak lekk doomi aadama ja gannaaw ba faatoo wan la war na laa wan rek ne la jëw moom lu bon la waxaalate waxoon na xayrul ambiyaay ngën ji yonante yi takaruran ci ak baamu li nuxbati nisaa yi ñeel tànnee fu jigéen ña ni ko xii ii waccul xii ii luujul te waccu xaaxtandikul luujul te jéema yàbbi lamma xaalat ba mu li mar ati ñeel jigéen atat xaaju dikkal na ko ne haasi jile jigéen tawilun aji gudd la dayluha mbiccam mi fa xaa at te mu waccu fa saqatat te rot mudghatu laxmin dogu yàpp fa xalafu mu giñ moom yonante bi salla yàlla na dooli tedd nga allahu yàlla xale yi ci moom maaxaasa li fekk làq na sharafan tedd nga bi am naxaa ci naka dog woowu law xadamat law xadamat doonte reesoon na laa budda mënta ñàkk mooy du jaas min duxoolihaa ci tàbbeem moom soxna Aïcha annaara sawara wa idal mawtu ndem dee nga yaa inu dana gaar wala tufiiduha tey du ko jariñ la dal jëlili fa aji màgg ja nisbatuha askanoom nga sàmm foofee ila rasul jëm ci yonante bi mu ne itam xisa bi de boo ko déggee bu day waar la ndax soxna Aïcha radiyallahu anha dafa am jigéen ju fa ñëwoon ci yonante bi soxna Aïcha ne kii de moom bicci malaanam yi daa gudd loolu dong la wax yonante bi ne ko loolu de ab jëw la xaaxtandikul luuju te jéem yàbbi ba xam naka mu xaaxtaniku luuju daal yàbbi aw lumb aw dogu yàpp yonent bi waat ne ko jëw gi ko jëw daa misaaloo ne lekk aw yàppam te mooy lii nga bi nii ne ko nag lii bu reesoon ci yow nga xam ne yàbbi woo ko nii boo faatoo faaw nga dem sawara lu mu néew néew nga dem sawara te it mu ne ko sama digganteeg yow ak ni demante du la tee dem sawara bu boobaa mais na xisa boobu boo ko dégloo rek gis ni jëw day waar wa hibatul muslimi jëw ab julit fii qawlil xabiiri ci waxi aji dañ ja kumpa aqbaxu moo gën a bon min ak lika ci sag lekk jiifatal xamiiri meddum mbaam nee jëw sa mbokkum julit daal moo gën a ñaaw tiim meddum mbaam di ko lekk tiim meddum mbaam di ko lekk daal la muy ñaaw ñaaw jëw sa mbokkum julit a ko gën a ñaaw wax wa qissatul marjoomi xisab kañu jam wal isnayni ak ñaar ñi ca toppoon xasbuka war na laa doy zaajiran ci aji jàjj bi xayri may nin ci ludul fenn yéena xise bi ñu lay bëgg a nettali am ku njaaloo woon ba ñu sànni koy doj ba mu dee gannaaw ba nag am ñaar ñu yonent bi dégg ñu jëw jooju ak lam leen wax xisa boobu neen boo ko déggee rek da nga xam ne daal ci dëgg-dëgg jëw moom bon na lool lool lool mabda'uha tàmbalikaayu xissa ba muy ann rasulallaahi naka yonente bi yàlla ba alayhi yàlla na dool yi nekk ci moom azka salawaatillaahi gën jaa seel di tere li yàlla yi xadd kaana nekkoon na daahiban di aji dem way jaaho te dikkal ko rajulun waay fa qaala mu ne ko xadd xalaktu alkuna yaa xayra rusuli yow ngeen ji yonante yi xaala wax yonante bi la xooñeel waaja ko lima ngir lan lu tax nga ne alku nga fa xaala mu ne ko naka man zanaytu njaaloo naa muxsanan mbir mu may ku ñu sengewul mbir mu may ku sengewul bi xam din ànd ko tey min nii ko tukkee ci man xaala mu wax la xooñeel ko yonante bi ne ko uddufu wool annaasa nit ña yar jumooka ñu jam la su ma daxaaxum topp mu woo leen su ma mooy nekk ci way wi fa te ñu rey ko id ya umm ba dana jublu nee na xisa bi day fa tàmbalee mooy yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa da doon dem benn waaye daf ko ne ko man day yonante bi alku naa mu ne ko lu tax nga ne alku ne ko damaa njaaloo te fekk ma sériwu sériwu mooy fekk na ma takk soxna ba joteeg moom jote gu wér a wér sériwu rek mooy bu dee góoroo bu dee jigéenoo bu fekkee sëy na sëy bu wér ba joteeg ka muy rek loolu mooy sériwu nga xam ne gannaaw ba bu fa jógee njaaloo rey moo ci war rey bu metti sax ndax dañuy jël ay doj mbooloo tas di ko ko sànni ba ba muy dee ba muy faatu mu ne ko nag man nag damaa njaaloo te fekk siniwu googu def naa ko te njaaloo gi maa ko tey kenn forcé wu ma ci te dëgg-dëgg daal moom luy tee ñu def ma la yàlla santaane ci man gisuma ko yonent bi ne ko kon wool nit ñi ñu def la yàlla santaane te mooy fab ay doj la ko sànni ba ba ngay faatu moom nag mu daal def gëm yàlla ragal gàcceeg àllaaxira daal def noona daal di woo nit ñi nit ñi tase def ko santaane yàlla boobule la ca topp nag ci la jëw bi feeñe muy wa baada za gannaaw lii tabiaxoo topp na yonante bi saxsaani ñaari jëmm yaxataa baani ñooñ danañu jëw li rajuli waa waaja almarjoomi jadi juñ jam gannaaw loolu nag am ñaari waay ñu topp ci yonante bi yonante dégg ñuy jëw waajooju nga xam ne moo njaaloo ba ñu rey ko reyuk sànda jooyle xataa ataw ba ñu dikkal jiifata xayrin meddum mbaam fa waqafa te mu taxaw moom yonente bi waxaala mu wax ne yaa zaani yéen ñi la ñaar kulaa lekk leen di mile meddum mbaam waxaala fa te mu ginne indi naka man ara maa ngi gis waa ya jurru muy diri fil jinaani ca ajana ya siyaabahoo malaanam ya fastadaha daal di gecci daal di torox ak shaxsaani ñaari jëm yooyee gannaaw ba ñu reyee waaja ba noppi nag yonante bi di dem am ñaar ñu topp bi nag di jëw waa jooju nga xam ne moo def njaaloo ga ba ñu reyee ko noonee yonante bi dem nag ba àgg ci meddu mbaam taxaw bàyyi ba ñaar ña ak ci mu ne leen lekk leen ci meddu mbaam mi ndax lekk ci meddu mbaam mi moo tane ni ngeen di jëwe waa jooju nga xam ne seen bokkum jullit la mu def lu aay rek te nangu la yàlla dogal ci moom bañ def ko ko ngeen di ko jëw lekk ci mbeddum mbaam mee ko tanewoon daal di waat ne nag maa ngi gis waaja ci àjjana mu sol ay mbalaanam mu gudd bay buubu muy diriku ndax tuub nga mu tuub daa sell ba yàlla jégal ko defal ko loole ñaari gaaye daal di torox daal di rus loolu moo tax mu ne la xisab ñaari gaay yi ak waa ji njaaloo ba ñu rey ko noonu day boo ko dégloo rek da ci xam bu baax a baax ne jëw moom lu mata moytu la wal buxdu mbañeel ga inda haulaay nuxu bi fa yilee tànneef buxdu ka moo di sag bañ musliman ab julit bi xayri sababin ci lu benn sabab yoo jibu bopp la na waral buxdaxoo ak bañam bi charxil Moustapha ci yoonu kañu tànn salla yàlla na dool tedd nga allahu yàlla xale yi ci moom summa fa topp mu teral ko nee na waxane la ne la mbañeel baaxut mbañeel gi wax nag mooy jekki-jekki bañ sa mbokkum julit te amul benn sabab ci yoon boo xam ne moo tax nga di bañ da nga koy bañe daal xëy na weesuwut ngeen bokk bëgg nangu ko bàyyee mbaa am daal loo seet ci wàllu adduna ba tax nga bañee ko ko waaye moom lam la waxoon rek ne la ku gëm yàlla moom na nga ko bëgg doonte dafa laa tooñ tooñ gu rëy rëy ku wedd yàlla na nga ko bañ doonte dafa laa jox alal ju dul jeex doonte dafa laa jox alal ju dul jeex loolu ba tey moo dil si war rek na nga moytoo jekki-jekki daal di bañ sa mbokkum julit te deful benn sabab ci yoonu lislaam boo xam ne moo tax nga war koo bañ loolu ëpp naa def waru yetul fadli ak gisu nganeel xal lu xayri ci keneen alzina ak njaaloo suxriyatun ak reetaane waxabasun ak fo bi sa bon na alxanaa ñaawteefoo ba tey nee na bokk na ci yi nga xam ne mu kàllaf war na koo xàmmiku te di ko wattandiku bu baax a baax mooy gis ne gën na kenn kenn ci yàlla sàkk saa yu gisee ne am na kum gëne dara dara rek loola ak réye ngi ci moom te ëppoon naa def ndax li nduru ngëneel mooy ëppale ko xam-xam mbaa gën ko rafet li diine te xam nga yooyu sax dëgg la baax na loolu waaye ak mujj rek ak mujj rek moo am solo te kenn xamagul ak mujjam ndax ab jaam mën naa nekk ci lu baax ba àgg ci ne rek des ci fekk li yàlla ci moom mooy dem sawara mu daal am mujj gu ñaaw ba tey ab jaam mën naa nekk ci sëgg ci lu bam ñëpp xamee ko riir ak doy waar te lu tee rek bu dekkee dem àjjana ndax la yàlla dogaloon ci moom rek mooy ci waa àjjana lay bokk te kon bu demee bay faatu rek faaw def lu ko yóbbu àjjana moo tax nag ndegam kenn xamagul sëg mujj kon bul defee ne gën ga kenn kenn ba tey njaaloo bokk na ci yi nga xam ne yu day day waar la maanaam bokk na ci bàkkaar yi mag yee mag góor gi jotee jigéen joo xam ne du soxnaam te moo ko tey kenn forcé wu ko ca loolu njaaloo la jigéen ji bu fekkee kenn forcé wu ko ca njaaloo la bokk na ci bakkaar yi gën a mag suxriyatun ak reetaane reetaane moom ëpp naa def xeeb kenn mbaa reetaan ko moom suñu boroom sax wax ko ci laa yasxar qawmun min qawmin xasa an yakunu xayran minhum wala nisaun min nisain xasa an yakunna xayram min na ina bu góor reetaan góor ndax xëy na kooku ñuy reetaan moo gën kii koy reetaan ba tey bu jigéen reetaan jigéen ndax xëy na kooku ñuy reetaan moo gën kii koy reetaan xam ne reetaan moom ëpp naa def ak fo fo itam mépp pox moo xam ne rek lislaam da koy aaye rek nañ ko moytu bu baax a baax mbirum pox mi mu wax nii dana leeral mooy lan balaa yàgg wa kullu man képp koo xam ne yanzuru dana xool fawqahu ak kaweem alkilaaba xaj ya falkal bu xaj xayrun moo gën minhu ci moom duunal irtiyaa bi ci lu dul benn sikki sàkka nee kuy xool ne xaj bi mako ko tane maa gën rek yooyu jamono xaj bala la gën rawante na kon nag rawante na mbokkum jullitam muy defee ne moom moo ko gën mbaa defee ne moo ko tànn ci kenn wet déedéet kon ëpp naa def li am na asla kulli naasin ngir naka cosaanal képp nit aadamu mooy aadam wax wate moom même tii nit turaa bi mi ngi bàyyikoo ci banu suuf sa faalamoo na ngeen xam ndax nee na mboolem doomi aadama yépp ñu ngi bàyyikoo ci aadama ndax xawaa soxnaan sax ñu ngi ko liggéeyee ci maanaam yàlla ngi ko sàkkee ci faaruk aadama kon aadama mooy cosaanul ñëpp te aadam suñu borom suuf rek la tabax wala bëtigu ëf ci ak ruu mu daal doon aadam kon na ndewam ñëpp ñoo bokk ndey